beneen bi mbokk yi mooy xam nga ni suñu réew mi ngi jëm ci tournir boo xam ni kenn ñaanu ko woon lii lépp nag daanaa taxaw fii di ko wax di wax ni fi ma seen Sénégal jëm boroom xam-xam yépp war nañoo wax imaam yi war nañoo wax ndax bu nu sàgganee ba virus fitna dugg ci réew mi soo moytuwul di nga toog sa kër bëgg jàmm te jàmm du la fa fekk ku weddi laaj dëkk yi ñu wër fitna ya fa am tey xool leen libi dunduñ ci jàmm tey xool leen Congo xool leen yeneen dëkk yi fi ñu toll rayante guddi ak bëccëg léegi ñun suñuy boroom xam-xam suñuy kilifa diine lan moo waroon nekk seen rôle ñu bari ci nit ñi boo waxee kilifa diine yi li war a nekk seen rol du ñu xool fi ngay waxee ñoom dañuy jàpp danga da nga contre Sénégal dafa bindoo woon ci ay këru diine këru diine bu nekk am benn xalif xalif boobu bu yëgee bu yëgul syndicat ci taalibe ya koy topp mbooloo ma koy topp na mu toll mbooloo ma koy topp ay xale ñoo ci nekk góor ak jigéen ñu am doole ñu néew doole ñooñu nga xam ne dañoo ñëw ci yow sëriñ bi ne la yaay suñu sëriñ fii te ci yow këru diine bu nekk am ko tey la jaadu woon yow sëriñ bi su réew mi naree basculer danga nga war a génn nga wax nga war a génn nga wax mbokk yi gàcce bi dal kilifa diine yi Sénégal neexatul wax de suñu demee ba cardinal Sénégal rek wax kenn déggul benn xalif bu wax ci fitna yi am ci réew mi lan mooy seen rol léegi loolu taalibe bu nekk nag bul jàpp ne Oumar dafa attaqué de xalaatalal sa bop nga xol ndax liuma sal wax deug la walu deug sa serigne lan la wax mom ci fitna yi am ci rew lan la ci wax question la ku nek na ko yóbbaale est ce que lii moo nekkoon rôle est ce que lii moo war a ñun dañuy contane ci serigne diina bo xamne nopi rek lay def nopi nopi rek say talibé nek ci fitna ñi ci mbéd mi di am fitna ñi di loru ñiy liggéey di am fitna dëkk bi am jaxasoo ci war a wax doo wax da nga dégg rek maa ngi wax ak diw ci suuf maa ngi wax ak président ci suuf nangam na est-ce que loolu mooy sa rôle est-ce que ñi la topp lii dañ la toppe woon est-ce que ñu jël seen yaakaar teg ko ci nga res leen àllaaxira te àdduna mënoo koo regle est-ce que ñoom du ñu xalaataat yow sa àdduna kii mënu koo régler bañ nga ko ba dafa ragal a wax ngir benn nit benn buur benn président ragal daa wax waaw bu ñëwee yowmal qiyaam yàlla ni tëll wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan ndax dana wax ndax dina wax kooku du wax kon mbokk yi loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax war nañ ko bàyyi xel bu baax nañu xam ne kilifa diine yi nekkatuñu kilifa diine de ay kilifa tarixa lañ de duñu kilifa diine de dañuy seetaan rek dekk bi dem ba gal gi lap su gal gi xare lap ci digg géej gi ñi ci ëpp ñi dé seeni taalibe lañ ñu na cell nopi li ba kañ fan lañu jëm gatché gënul reuy li tay ndaw ñëpp ci internet bi ñu ngi naan yi catholique yi wax na mais ken déggul kilifa këru diine bu wax ñep nopi allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walayt wa la yaiz man aadayt tabaraka rabbana wa taalayt falaka alhamd ala ma qadayt قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم